bay jàpp doo bay jàpp. doo bay jàpp ma lay rey de. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa Xass TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla ah di leen wax bismillah. mère. Ndeye Marème Fall. Ndeye Marème Fall. waaw Kër Massar. Kër Massar sa doom bi fi indoon nu mu tudd. Cheikh. Cheikh na Cheikh Niass Cheikh Niass. waaw avant nga koy indi fii lu mu daan def moom. dafa daan dafa doon bu ko affaire bi dikkalee. Mhm. premier jour bi dafa ñëw rek commencé di yàq. yàq guddi googu kenn nelawul. naaf mhm. la jël di dóor. lu mu daan def lu mu daan jàng moom. ci tabax yi moom doon ko joxoon internat. Ah. Euh, Malika. Malika léegi nag ñu gis fa dara mhm. na yàgg si moom. Mhm. na yàgg. ok léegi mu ñëw mu ñëw mu koy def lan moom feebar di ko def lan. léegi mu ñëw commencement bi dafa daan xool si kaw asamaan bi waxtu rek di jël ndox yi di tuur. boobu am na lu mu daan gis. waaw di sànni ay dàll. Mhm. yàq daal magasin bi ko dajee bi sama tamoon yëpp daf la ko def. yëpp teg. waaw yooyu la daan def avant muy ñëw fii. waaw léegi noo ko gisee. waaw moom waaw parce que nee nañ ma bi mu fi doon dóor bi muy ñëw fii. waaw nee daal dóore. bi mu ñëwee fii. léegi bàyyi ñu laaj ko léegi nag comme léegi moom macha allah Cheikh na nga def waxal baax yaa ngi ci jàmm. waaw. Euh, loo yëg sa yaram fi mu ne. tane nga. am na li nga daan gis ci kaw asamaan. gisatoo dara. léegi sa yaram féex na. kon dama laa bëgg may soxna léegi de. ma laaj sa yaay. ah soxna si loo wax ci loolu. xam nga xam nga léegi moom comme fi ne macha allah. léegi xel mi ñëwaat na dóoreetoo tojotoo dara sa xol naqareetul dugal taxaw ma woon allah ah xam nga ñun lii lañ ci jublu lii rek lañ bëggoon nga wér rek jàmm yàlla jàppale la doolu la sutura léegi nag comme soxna si nee nga sa yaay ngay laaj ah kon après loolu lañ laaj sa yaay rek dégg nga soxna si. baax na jërë gen jëf. ah xam nga risque amu ci sax xam nga tey faj. ba ko obtenu yow moom sëriñ nga obtenu da ngay faj ku nekk dinañ la koy indil maanaam man jàppee bu ko risque parce que tey ki nga xam ni dañ ñu dafay dóore te nga xam la ko tax di dóore wala ñu la dafay rëcce di daw te nga xam la ko tax muy rëcce di daw ku xëj na ñeneen lay jaaxal waaye du la jaaxal moo tax problème boobu ñun côté boobu ko jàppee risque macha allah. Hmm. léegi maanaam moom rab moo ko doon def loolu muy def wala feebaru xel la wala lan moo ko doon poussé muy def loolu. xam nga ci départ bi yaa ngi mu mhm. daara daara ja la nekkoon di jàng mhm. maanaam dafa am jinne yi koon yoo xam ni mooy maanaam ñi nekk ci daara yi di jàng tey lañ gën a solo sa par rapport ñi nga xam ne ñu ngi jublu lu mhm. parce que ki nga xam ne dafa jublu lu baax ñoom dañuy def seen kéem lay kàttan ba doog loolu wala ñu yàq ja tey affaire yaa ngi leen di soppi ñu ngi leen di def loo leneen wa ilaa di ñuy jëfandikoo yeneen yoo xam ne àndul ak la leen fa yóbbu te ci jinne yu bon yi ñoon ñoo leen di solu di leen ko def parce que bu fekkee nag dem na ba mënulaa dugg li muy def mooy par exemple di la wan image am moo waral comme ni mu expliqué daan teen di xool asamaan parce que tout le temps jinne ji day assister di ko wan boppam fu mu tourné day gis boppam problème boobu la doon am léegi nag day xat ci biir nit ñi moo waral muy dóore. Hmm. léegi kon daal su ma déggee sëñ bi maanaam léegi jinne yi bu ñu xamee ne yóbbu na la ci lu baax pour ñuy sàkku ci yow xam-xam wala dara pour mu mën a nekk ci yow léegi dañuy bëgg a détourner sa xel mi détourner la maanaam pour yóbbu la ci safaan waaw xam nga loolu nag day bokk ci seen itte ñoom parce que loolu leen tax a dafa am yu bon yoo xam ne tey nee naa la fu ñu xam ne lu baax lañ fa dinañ ci def seen kéem te lay kàttan ba yàqu di taxawal diine koy gis ëllëg mu dugg koy bàyyi parce que day xam ne kii yàqu na ba pare nga xam ne dafa aw yoonu baax day jaral diine ji dem mu def kéem te lay kàttanam pour sonal ko léegi looloo waral moom nag ci biir daara jam nekk di jàng loolu ko affaire bi feeñoo bi ñu ko feeñoo bi yaayam nee na loo jël marto di toj teg verre daal xam nga loolu dañ ci daan am jinne bu xabtaloo dëgg parce que fépp fu muy gisee boppam rek du ko bëgg moo tax da daan sonn xeex dana yaaj sax neen daan na di dóore pour nga xam ni lu doy waar la yoon bi actuellement bari na ci réew bi mais ñun jàppee wuñ ko ku xel mi yéegee parce que dañoo gis ni lii rek moo tënk moo koy utaleeg nit ñi buñ ko dindee loolu day def benn genre kiiraay bu dox sa bu dox diggante nit ñi la daal rideau la rek waaw ba sa néeg boo dugg da ngay def nii dugg dugg gis nga ni mu yombee waaw mm-hmm. <coughs> loolu la rek maanaam dafa nekk loo xam ni di baal man tooyee ma jàpp mm-hmm, waaw <coughs> léegi kàtti mm-hmm. mais dafa nekk loo xam ni du du lu diis maanaam ba sa néeg da nga koy takkal rido ngay jàll nga def nii rido bi jàll jinne bu la jàpp su fekkee mënul a dugg parce que des fois xam nga bu fekkee da ngay jàng alxuraan am na loo xam ne sa yaram mën na dem ba dëgër léegi da ngay gis moom tout le temps dafay insister ci sa yoon di la woo ilaayi foo tudd di ko gis moom fexe boobu lay def léegi mu nekk li muy xeexee mais bu nekk li nga xam ne nag gënul li jëm ci li la xërtal ci sa fandaar léegi mën nañoo xam dégâts yi moom fan nga jaar ak moom ba ay mbokkam am satisfaction comme ni nga def nii rek daal sa caméra branché mu jàkkaarloo man nga xam ne yaa ngi wax français mm-hmm. man noonu laa jàkkaarloo moom xam ko bàyyi jàmbur da koy bàyyi rek c'est simple salaamaaleykum maaleykum salaam yaa jàpp diw waaw nanga xam nga léegi dama boo see ma changé concept cent pour cent pour Karim mhm. xam nga lii ma ëppal important mhm. léegi dañuy dinañ jël départu faj bi jëlit buñ ko fajee ba pare mhm. jël ki ñu faj jël ki ko indi ko indi parce que damay wax Sénégal tollootul foo xam ne bu dee wax rek kaatime kenn dàq ko wax wala yéen journaliste yi kenn dàq leen wax man dama jàpp ni léegi jamono toll na ko xam ni wane li ngay def timbali nit ñi benn côté fa ñu xam daal réer mi du foofu daal mm-hmm. macha allah macha allah kon daal bu ma la déggee bu baax a baax muy maanaam nekkul loo xam ne ni daal lu la jaaxal la ah, waaw maanaam yow day ñëw rek nga faj ko ci saa si mu dem nekkul maanaam li ma bëgg a wax mooy nekkul procédure bi yàgg ah, déedéet wàllu faj moom mm-hmm. liñ ci nga tëdd di nelaw ñu gën a jaaxal ko nga di ma tëddee di nelaw sonn billaahi moo ma gën a jaaxal ci faj faj moom tey boo ma newoon pëg pëg ni ma sëriñ bi kee ngi bëgg a fàtt wala mardi tali ma xool xam ni àggagul yàlla seetlu ci kàttanu yàlla mën naa ko yëkkati ci sa côté boobu moom amatuñ amuñu ci problème daal moo tax